mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibeer gi di daral dalal ba Sagna di maire si Sindia fare ca département bu Bignona ponk yi ñu war a waxtaane bëri na rawatina jafe-jafe yu askan bu Bignona wala sax Sindia di jànkonteel ci wàllu ndox ci infrastructure de base muy jumtukaay ci wàllu tali yeeg district sanitaire yi addu ci wàllu politique muy élection locale yi ak coowal transfert d'électeurs yi ak coalition yi ku jéggi taxawal ngir ñoon a janoo ak gouvernement bu Macky Sall ban xalaat la ci am lan euh, taxawaay la ci am loole yëpp dinañ ko waxtaanee ci émission gox bi ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci mi FM 97.5 Euh, ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu say auditeur ak say auditrices. Mhm. Euh, di nuyu équipe réew mi FM bi yëpp. Mhm. depuis euh, directeur général ba. ba mhm. ci employé bu gën a ndaw bi. naam employé yëpp ay employé lañ. dëgg la fausse couverture émission bi daanaka euh, actualité bi benn la mooy cow la am ca Guinée Conakry daanaka ka fa nekkoon njiita di Alpha Condé euh, ñi di groupe des forces spéciale ñoo def ab coup d'état ka leen jiite sax di Mamadou Doumbia moo euh, sabab daanaka moo le coup d'état ba jël sax bopp góor daanaka sax askan ba yeewoo ca Guinée dafa mel ni dañ leen a libéré ginnaaw Alpha Condé ba mu fa toogee ñaari mandat ba laajaat sax ñetteelu mandat mu juróon fa coup d'état la ñu fa nemmeeku ban jàngat nga ci am en tant que maire. waaw euh, jàngat bu njëkk bi mooy euh, ñun en tant que ñoo xam ne dañu jàpp ni. Mhm. pour euh, diriger askan. il faut ñu def ko ci ay règles démocratie mënuñu rafetlu lu lu mel ni coup d'état wala ay jël nguur par force. Mm-hmm. waaye nag bu nekkee loolu moo jën ci peuple de Guinée moo jën ci Guinée yal na leen yàlla jàppale. Mm-hmm. yóbbu leen si si nga xam ne moom moo jën ci Guinée. Mm-hmm. Ah, ku boobi la sax coup d'état en tant que acteur politique euh, sa bu ñu sukkandiku lan moo ko sabab gis nañ euh, maire Alpha Condé def nañ ñaari lu mandat ñetteelu mandat te gis nañ Guinée dafay jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ci wàllu sax lii di pauvreté. waaw dëgg la boo suivre histoire Guinée di nga xam ni euh, di nga gis tamit ni depuis euh, cinquante neuf mhm. euh, dafa nekk ay jafe-jafe yoo xam ne dëkk boobu mu ngi koy mu ngi koy am ci côté côté stabilité mhm. régime mhm. donc bii dee dem bii di ñëw et cetera ainsi de suite mais lu ñu mën a jàngat comme ni nga ko waxee noonu signe avant coureur yi amoon nañu depuis parce que boo xoolee euh, balaa moom Condé muy ñëw amoon na ay jafe-jafe Guinée ba mu ñëwee tamit mm am na lum si def waaye tamit euh, coow ñetteelu mandat bi mhm. moom mm -hmm. mun nañu xalaat ni bokk na même bu nekkul moom kese bokk na si lu ko mën a jural si mm situation bi nga xam ne moom la nekk tey ak coow lu ñu daan denrée de première nécessité mooy dund bi cher na Euh, ñu ngi koy dund fii booy suivre actualité Guinée da ngay xam ni euh, lu ñu xaw a dal tamit mu ngi leen di dal. si côté mhm. njëg yi. Mhm. côté pauvreté bi ak côté vraiment nekki nii. Euh, xaw na sooxe foofu bu baax a mhm. baax tamit. par exemple comme réewum Sénégal ban leçon la ci war a mën a tirer. waaw leçon bu ñu mën a tirer mooy xam nga lii mooy lu ñu naan ay baromètre. donc il faudrait que réew yëpp. ñu jàpp ni euh, baromètre social bi dafa nekk loo xam ne lu ñu war a euh, bàyyi xel bu baax a baax déjà euh, Mali annoncé woon na couleur bi ak gis ngeen fu mu jógee ak fu mu mujj tey Guinée moo tout bon ñu yàlla ñu egg ci loolu mais war nañu bàyyi xel acteurs yëpp. Mhm. surtout nguur gi. Mhm. ni population bi quand même. Mhm. di leen di noot mënul nekk loo xam ne luy continuer. coow ñetteelu mandat am na foofu gis ngeen fu mu mujj. coow njëg ñi njëg yi nga xam ne ñu ngi cher ba askan wi nga xam ne mënatul euh, euh, gis boppam ci euh, dund bi loolu tamit nekk na loo xam ne si ñoo xam ne ñu ngi koy seet ñu ngi koy seetlu fii tamit ci Sénégal. donc mm-hmm. c'est vrai Sénégal bëri na ay régulateurs sociaux tels kilifa diine yi. Mm-hmm. ak kilifa aada yi nga xam ne toujours dañuy ñaan di wax lu rafet tamit ci acteurs yi ni ñu war a jouer. loolu dimbali ñu dimbali nañu bu baax a baax. Mhm. suñu régulateurs sociaux yooyu. waaye tamit euh, vraiment nañu jàppale suñu régulateur sociaux yi. ba ñu mhm. poser ay act yoo xam ne daf ñu mun a yóbbu si ay. Euh, tooxi doona comme yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di dal Guinée tey mhm. mu nekkoon euh, fausse couverture émission bi dellu si fii si réewum Sénégal rawatina sa Sindia waxtaanee boobilee localité ñu bàyyi la nga présenté ko waaw commune de Sindia nga xam ne man maa fa nekk jaraaf ba depuis 2014 mooy élection mhm. euh, communal yi passé euh, mu ngi nekk ci département de Bignona mhm. nekk ci département de Bignona si région euh, Ziguinchor mhm. mu nekk commune boo xam ne am na lu mot fukk ak juróom-ñeenti dëkk village ñoom ñoo ko constitué dëkk bi nag si présentation bu ñu mënee tënk ñi nga xam ne ñoom ñoo fa Euh, bindu ñu recensé leen. Mm-hmm. comme ay euh, habitants de commune bi. Euh, mot nañu seize mille habitants. Mm-hmm. ci commune boobu donc nekk na loo xam ne du lu néew. Mm-hmm. commune bi potentialité maanaam bu nekkee loo xam ne loolu la ñuy wax ni ci côté gàncax ci côté économie ci côté production ak appui production lu ñu gën a mun a jàpp ni moom la ñu mun a yaakaaree ci commune boobu. mooy lu mel ni àll. am nañu fore Euh, forêt boobu nekk na suñu ressource fondamentale am na ñu nit ressource humaine tamit ki nekk na loo xam ne lu am solo mhm. euh, essentiellement bu nekkee li nga xam ne si loolu lañu ñu mën a basé wu mhm. mooy ci loolu par rapport ak euh, économie bi mhm. par rapport ak infrastructure yi. Euh, euh, incha lool loolu dinañ si dellu si ci biiru waxtaan bi laata loolu sax gis nañu askan ba fa yeewoo dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox en tant que mairie bi lan mooy sa responsabilité ci lool waaw dëgg la dañuy jànkonte bu baax a baax ci euh, wàllum ndox xam ngeen ni commune de Sindian comme commune zone rurale yi. Mhm. ñu ngi bokk ci benn réforme boo xam ne OFOR moo ko. Mhm. jiite mhm. réforme OFOR boobu. Euh, dafa indi euh, lu ñuy naan délégation euh, service publique en zone rurale. Mm-hmm. ñu am récemment benn délégataire bu ñu fa yónnee mais ba léegi waxtaan ni antewul ba léegi. Mm-hmm. bon balaa boobu dafa am lu ñu naan gestion communautaire. Mm-hmm. yu forage rural yi donc gestion communautaire boobu à travers implication communauté si gestion bi. mun na am ay jafe-jafe parce que ndox mi du ñëw de manière régulière parce que mhm. ay cotisation la yoo xam ne tollul ak euh, consommation ménage bu nekk mais euh, dañ ko jàpp ci ay jàppalante mhm. donc ci euh, humanitaire ci social mm-hmm. donc ñëpp si def seen euh, loxo di nga gis ki nga xam ne dafa am consommation bu rëy contribution am euh, du am différence bu bëri ak ki nga xam ne dafa am consommation bu ndaw mm-hmm. mais bu ñu demee ba indi ay délégation de service public nga xam ne dañ lay tegal compteur boo xam ne li nga consommé loolu nga tub loolu dafay andi gën a andi ay jafe-jafe ci moo tax foofu daal suñu léegi euh, réellement fan la jafe-jafe bi nekk fan la site problème bi nekk ci société yi yor wàllu ndox bi fare ca boobu la googa localité la wala waaw problème bi fu mu nekk mooy euh, réforme bi mhm. dafa ñëw andi benn gestion boo xam ne mun nañu jàpp ni modernisation gestion utilisation ndox mi la pour que mu mun a am euh, durabilité mhm. pérennité de utilisation peut-être mu mën a am bañ a am ay coupures mhm. mais problème bi fu muy nekk mooy askan bi préparé wu ñu ko. bu mhm. baax ci euh, côté boobu. Mhm. non seulement préparé wu ñu leen bu baax ci côté boobu. mais côté ressources yi mooy euh, côté euh, li nga xam ne moo leen di mun a permettre ñu fay seen factures yi situation économique bi mooy seen revenu yi seen suuf parce que ay béykat lañu. Mhm. donc ñu ngi am revenu boo xam ne annuel la pour l'essentiel. at ba at la ñuy am seen revenu. donc boo leen dugalee ay gestion boo xam ne il faut que ñuy fay weer ba weer wala ñaari weer ba weer. Euh, ñaari weer mhm. alors que ñoom seen xaalis ni koy amee ñëw du nekk loo xam ne weer ba weer la wala ñaari weer ba ñaari weer. Mhm. loolu day indi ay difficulté alors kon balaa ñoo def boobu la réforme dañoo waroon amal benn concertation wala benn sensibilisation auprès de la euh, population doog a def euh, boobu la réforme. oui loolu la parce que gis nañ du commune Sindian kese yow yaa ngi suivre. Mhm. actualité parce que ñoom ba ñu commencé réforme am na ay zone pilote fu ñu commencé mooy zone nord ay Saint-Louis Louga et cetera. Mhm. mais fépp fu réforme bi jaar rek. Mhm. dégg ngeen coow coow coow ñu mu àndal. Euh, ba weer bi passé rek dégg ngeen coow lu sous préfet boobu bi nga xam ne. dafa dem ba tëj forage bi gars yi génn di manifester. Mhm. donc réforme boobu fépp fu mu jaar rek. Mhm. ay coow la nekk di andi. Mhm. donc comme mu ngi dugg si tamit si suñu commune. Euh, ñun dañuy attirer attention ne leen ni. réforme boo xam ne ba mu ñëwee fu mu jaar yëpp comme phase pilote dafa àndi ay problème ay jafe-jafe nit ñaa ngi yuuxu di def ay rouge. buy jéem a Euh, law mooy di yokk dooleem pour dugg si mhm. feneen fi nga xam ne dugg fa woon mhm. da ngeen di xaw a marquer le pas bu baax a baax euh, gën a dugal waxtaan bi waaye tamit jëm a dooleel mhm. euh, askan yu fa nekk pour que ñu mun a fair face a loolu mais loolu ba léegi fu mu nekk ni amagul bon mais euh, comme mënuñu leneen loo xam ne jéem a ànd ak li nga xam ne nguur gi loolu la joxe comme dogal. Mm-hmm. parce euh, collectivité territoriale mooy maire. Mhm. Euh, laajuñu ko avis si est-ce que dañuy appliquer wala. Mhm. wala non ñoom dañuy ñëw ne euh, voilà mhm. ñu joxe ay institutions yu claires il faut mettre en place ay comité de pilotage pour bi. mais laata loolu leen en tant que comme yéen yéenay njiital boobi leen localité dañ leen waroon a dugal ci yëf yi balaa ñoo jël boobi leen réforme d'autant plus que réforme boobee sax mu ngi indi ay jafe-jafe yu métti population ba fa yeewoo. waaw dugal nañ ñu si yëf yi mais joxuñu suñu gëdd ak suñu place bi nga xam ne moom la ñu waroon jox ci côté boobu. Mm. parce que en tant que euh, locaux ñu nekk ay euh, représentant population bu ñu lay dugal si yëf yi waruñu la dugal si yëf yi ci en terme de partager cest di dire que ñëw euh, wax la réforme bi naka lay tëddee naka lañ koy andee. Mm. donc maanaam dañu bind seen seen yëf tënk seen lépp ba pare daal di woo Euh, collectivité territoriale ñoo naan ni réforme bi nii la tëddee euh, nii lañ koy dugalee. Mhm. maanaam dañuy yëgal rek. kon donc booleew ñu si. ci mhm. liggéey bi. Mhm. pour ñu mun na leen jox ñun suñu xalaat ci boo leen buggee réforme bi mu gën a naat. mu gën a rafet mu gën a oyof tamit si askan wi. nii lañ nii nii ngeen ko war a defee. dañ leen a rek mais impliqué wuñu leen ci ci doxalin bi. voilà impliqué wuñu si doxalin bi si réforme bi pour que ñun ñu andi. suñu euh, suñu xalaat. Mhm. ak suñu gis-gis si réforme bi naka lañ ko war a nañu war a def réforme bi. de telle mhm. sorte que mu mun oyof ci euh, communauté bi si population bi si nga xam ne ñoom ñoo nekk en zone rurale. Mhm. donc moo tax boo xoolee euh, man gisuma benn maire boo xam ne rafetlu na doxalin boobu. en tout cas bu nekkee am na ñu ko rafetlu ñun rafetluñu doxalin boobu. maanaam dañu togg seen lépp. dañu maanaam dem seen marché. Mhm. def def seen dugg ba pare. Mhm. togg seen lépp ba pare euh, ñu woo leen ne leen voilà euh, lii la ñu togg ñëw leen ñu xool nu ñu koy lekkee. donc mhm. euh, loolu bon euh, mënuñu si dara parce que seen responsabilité la mm -hmm. problème mu décentralisation bi est-ce que décentralisation réellement Euh, am na transfert de compétence am na am na si terrain bi si terrain bi côté mhm. boobu mun mhm. nañu xam ne si point boobu si point boobu mhm. euh, seen gestion la bu ñu jël parce que dañu ne OFOR moo moo moo yoree mbir bi OFOR mooy def lépp même euh, ni ñu tànnee ni ñu tànnee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yoree ndox mi ci gox yi maire yi impliqué man xamuma naka la def ba tànn ki nga xam ne kooku mooy ñëw gérer ndox mi foofu ci commune bi xaw ma naka lañ ko def. kon alors amoo si benn responsabilité. aw si benn responsabilité parce que ñoom ñoom ñoo defar ñoom ñoo bind seen réforme. Mhm. Mhm. ñoom ñoo tënk seen réforme. Mhm. ñoom ñoo bind seen directive. yónnee ko gouverneur yi ak euh, préfet yi ak sous préfet yi. ñu ñëw wax ñu naka la ñu war a def. ñu partagé ci loolu. Ah, ñu ànd ak ñoom ci li ñu wax ni loolu la ñuy def. ñu tànn seen ki nga xam ne. ñoom ñoo xam procédure yi ñu jël. Mhm. parce que ñun xamuñu yan procédure lañ jël ñu tànn seen ki nga xam ne moom mooy gérer même bu nekkee dañu ne euh, provisoirement lañ ko tànn. Mhm. ñu àndi ko ne kii mooy gérer. Mhm. man daal keroog benn yoon. Euh, bi nga xam ne boobu lañ ma ko présenté benn boobu yoon boobu laa xam ni donc kii la ñu tànn aw ma benn implication si tànneef bi nga xam ne moom la ñu tànn ki nga xam ne moom mooy gérer ndox mi foofu ci commune bi. Euh, seetlu nañ sax yooyu la entreprise nga lim muy OFOR ak Aquatech ñoom daana ñoom ñuy yor wàllu ndox mi ci à l'intérieur du pays notamment Bawol rawatina sax Sindia ñoom li ñu leen di joxoñ wala sax li leen di joxar bi baaraamu tuuma ci wàllu séddale ndox mi dafa bëri lool en tant que maire yow ban jéego nga ci def pour que souffrance population bi pour ñu mën ko alléger tuuti. parce que euh, gestion communautaire ba mu amee. Mhm. c'est-à-dire que population ñoom dañuy cotiser. Mhm. pour ñu mun am ndox. Mhm. ñoom cotiser wu ñu. pour mun a jaay ndox pour am bénéfice. Mm -hmm. mais ñoom dañuy cotiser mm. pour am ndox pour mun a dund. Mhm. naan. Mhm. jox jur ji mu naan et cetera mhm. ainsi de suite mais ba boo àndee benn privé. boo xam ne moom bénéfice lay ut moom maanaam moom day gérer ndox mi pour am si bénéfice. fay ay salaire gestion communautaire bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon euh, gestion boobu. ñoom amuñu ay salaires yu ñuy fay seen bopp. parce que ñoom ay sacrifice lañu. lañ la ñuy def population bi lu muy def mooy léeg-léeg dem béyal leen seen tool et cetera parce que ñoom am nañu. Euh, ñàkk jot bi nga xam ne euh, bu ñu amul pour mun a occupé aussi seen tool yi entièrement mhm. parce que ñu ngi nekk si benn côté wu population bi di leen di lijjante ndox mi di leen di yónnee ndox mi mhm. donc population bi di leen di fayee euh, jaajëf mais di leen di fayee tamit di dem di leen di béyal seen tool mhm. léegi boo àndee benn privé boo xam day ñëw moom lu muy raisonné mooy lan moom day jël ay employés yoo xam ne daf koy daf leen di fay salaire mais moom aussi day fay am ay frais de fonctionnement yoo xam ne yooyu lay gérer waaye tamit day am mu am parce que moom bénéfice la si ut. Mhm. donc salaire yooyu plus revenu bu mu si ut euh, mooy bénéfice bu mu si bëgg am loolu day augmenter charge u coût population bi pour mu am si ndox mi. Mhm. donc loolu euh, dafa nekk loo xam ne mënuñu ko nu ñu mën a def au niveau urbain nga xam ne niveau am na ay niveau de revenu yu mën a def loolu. mënoo mhm. ko mënoo jóg ni rek nga daal di ko def au niveau euh, rural. donc moo tax effectivement comme ni nga ko waxee noonu. nu mu amee ay jafe-jafe feneen noonu la ñu xaaree ñun tamit mhm. ay jafe-jafe tug moo tax mhm. ñu ngi nekk di alerter mhm. ne leen def leen dànk affaire bi euh, du nii ensuite boo xoolee côté investissement da ngay andi kenn ne ko yow yaay gérer ndox mi yaay gérer ndox mi te investissement boobu xamoo nu mu def ba egsi donc naam am na ay forage yu bees yoo xam ne nguur gi moo ko teg foofu avec euh, euh, complicité au effort yu bees yi mais ancien forage yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk population ñoo xam forage yooyu naka la ñuy def ba ñu ba ñu am ko. Mhm. Euh, fàttaliku ngeen fii euh, jamono yi ñu daan wax monsieur forage madame Moulin. Mhm. Abdou Diouf am na ay forage yu bëri yoo xam ne mayoon na ko gox yi nekk ci biir. Mhm. donc forage yooyu yëpp. yi nga xam ne ay jamonoy yi Abdou Diouf la jamono yi yàgg-yàgg yooyu yëpp dañ ko boole ci biir gestion boobu jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer lu bees te forage yooyu euh, dafa dañuy ñëw toog commencé di exploiter dara. Mm-hmm. te defaguñu benn investissement ci loolu. Mm-hmm. moo tax ñun suñu proposition ñun bu ñu si boole woon. Mm-hmm. mooy ñii bu ñu ñëwee ñoom dañuy ñëw d'abord nekk à côté. de li nga xam ne moom moo fi nekkoon. ñuy xool accompagner ñi fi nekk techniquement ñu bañ a dugal ay question de prix. ñu accompagner leen techniquement pour que ñii ñu mën a taxaw. ne leen ni léegi dañ leen di accompagner et en même temps ñu def ay investissement hmm. moi je pense que képp koo xam ne ñëw nañu ñu dënk la gestion ndox te defoo benn investissement waruñu la bàyyi nga commencer di tiire profit hmm. maanaam yow dangay ngay di gañe xaalis di gagner dara ci loo xam ne yow xamoo sax fu mu jógee hmm. loolu euh, def naa ni euh, xel waru ko mun a nangu donc dañ koy nangu nii parce que munuñ ci dara mais nga ñëw euh, fekk population bi sonn ñaan ba ñu may ko dara ñoom si seen bopp par exemple même communes yi. Hmm. am nañu ay effort yu ñu def pour jàppale population yi si yenn branchement sociaux yi euh, jékki-jékki kenn ñëw fële. Hmm. ñëw naa ni léegi li ngeen am noonu. te hmm. man defuma si dara. loolu da ngeen may fay. Mhm. man maay encaisser loolu. Mhm. après ma rémunérer ay ñoo xam ne ay mhm. employé lañu. pour ma continuer di leen di jox noonu. coow li daal li ko waral mooy boobu entreprise investissement yi mu ci def maanaam ay koppar la ci bëgg a jëlee loolu moo indi indi jafe-jafe ci wàllum ndox léegi lan mooy alternative bi c'est ndax ndax ndox moom dafa bokk ci dundu doomu aadama. alternative bi mooy fu mu nekk nii euh, dañu war a euh, lu ñu naan marquer le amul benn commune boo xam ne euh, d'accord na ci doxalin bi parce que képp ku ko d'accord rek c'est que da nga xamul fi nga jëm ëllëg. Mhm. da ngay dem droit au mur da ngay dem mbëkk mur. Euh, donc alternative bi fu mu nekk nii mooy ñu taxaw ñooñu nga xam ne dañ leen dénk mbir mi mu am loo xam ne offert moo leen koy fay. Mhm. maanaam état jël ci moom responsabilité wu accorder budget ñooñu nga xam ne moom moo leen jël. yóbbu leen foofu pour ñu gérer ko mu accorder leen benn budget de fonctionnement ak benn budget d'investissement en fonction de ku si nekk Euh, sa nature investissement yi nga war a mun a def ci zone boobu pour que zone boobu ndox mi mun a dem correctement parce que am na foo xam ne day laaj ay extension de réseau boo jëlee suñu commune sama commune commune de Sindia euh, ñeenti dëkk ñoo fa amagum forage. Mm-hmm. si fukk ak juróom ñeenti dëkk. Euh, dëkk commune euh, dëkk bi nga xam ne moom ay siège commune bi muy Sindian mhm. euh, moom moo gën a rëy mais presque taux d'accès ndox mi amul doole donc am na ñu bëri ñoo xam ne amuñu accès ci ndox mi te lu tax ba amuñu accès ci ndox mi mhm. nekkul dara lu dul tout simplement extension yi ñu war a def extension yooyu amul mhm. donc loolu nekk na loo xam ne ay jafe-jafe la si Euh, investissement yi nga xam ne yooyu la ni ko moo tax alternative bi mooy da ngay ñëw comme réforme la boo xam ne état gouver nguur moo ko andi da ngay ñëw toog ci wet gi. Mm-hmm. mais nguur moo lay fay différentiel bi mooy manque à gagner bi. Mm-hmm. nga bañ a ñëw toog naan ni da ngay fexe ba nga am bénéfice ci exploitation ndox mi pour que yow nga am si sa bénéfice bi ngay jël dem. Mm-hmm. maanaam tey boo xoolee lu bari lu ñuy reprocher. Euh, euh, tubaab yi nii dañuy ñëw fii si suñu dëkk yi ah, euh, def si seen ay jël seen bénéfice dem seen yoon bàyyi ñu fi ak ay jafe-jafe loolu la ñu nekk di gis jël benn société fële nit ñi xamuñu fu mu jógee mu ñëw exploiter li nga xam ne moom defu si même benn investissement mu exploiter ko jël ab bénéfice am comme test la su nekkee test bi moom mhm. satisfairewul effort parce que OFOR euh, moo nekk di suivre loolu. Mhm. OFOR remplacé ko indi keneen ñoo teg. kooku tamit ñoo di jël ab bénéfice moo tax alternative comme ni ma ko waxee noonu. Mhm. Euh, OFOR. Mhm. jël en charge structure yi nga xam ne mooy euh, prestataires yi nga xam ne yooyu la dënk gérer ndox mi au niveau rural man pour man loolu mooy alternative bi. ñoom ñi nekk foofu techniquement di accompagner. ASUFOR yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon foofu mooy association yi doon gérer forage yi buñ ñu tuddee ko comité de pilotage wala ASUFOR loolu amul solo li am solo. Hmm. mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def ba ndox mi euh, law di walangaan fépp fi nga xam ne kër la bu soxla ndox ci biir commune bi waaye tamit si njëg yoo xam ne euh, askan bi nga xam ne moom mooy yeewoo foofu attan na ko en terme de revenu. Hmm. pouvoir d'achat. Hmm. mais munoo. Euh, dugal loolu sans tenir compte ci pouvoir d'achat wu mhm. population bu fa nekk mhm. di la addu ci leneen gis nañ euh, at jële wala sax fan yee ñu génn gis nañ la nga génn def benn intervention di décrier wàllu lii di infrastructure lii di Sindia daanaka sax muy yoon yi dafa xaw a xaye di léegi fan la tolluwaay bi toll jamono ji est-ce que Sindia am na ay yoon yi nga xam ne daal méngoo ak jamono euh, fu mu nekk nii vraiment jafe-jafe bi nga xam ne mhm. moo gën a tar si zone boobu zone Sindian mm-hmm. foofu boobu mm-hmm. mooy jafe-jafewu tali mm-hmm. jafe-jafewu tali parce que euh, même daaw population bi demee ba mu demee ba vraiment amatul pexe jeunes yi dañu génn manifester di laaj tali assemblée nationale daal di dégg loolu yónnee benn commission parlementaire mu dem xoolal boppam li nga xam ne loolu la euh, askan bi doon euh, Mhm. Euh, manifester. Mhm. ba ñu demee ñoom seen bopp teg nañ seen seen seen bët si kii actuellement fu mu toll nii. Mhm. mooy pour répondre ci question bi nga wax. mun naa la wax ni jóge Bignona dem Sindian c'est la croix et la bannière. parce que tali yàqu na ak nawet bi. Euh, fépp ay kamb ñoo fa nekk te kamb yooyu jël nañu ndox oto yi mënatuñu dem mënatuñu dikk ay contournement la ñu daan def. donc fi nga doon def euh, vingt kilomètres jóge Bignona dem Sindian actuellement dangay def lu ëpp quarante kilomètres parce que da ngay def déviation ci euh, yeneen dëkk maanaam. Mhm. pour dem Sindian actuellement. Mhm. da ngay traverser lu mot ñetti commune mhm. parce que da ngay wiiri. li ndax tali ñoo xaye di moo tax léegi oto yi di wiiri. non seulement tali yi euh, dañu yàqu. waaye euh, tali yi dañu am problème mu entretien. donc maanaam dafa am ñaari Sénégal. Sénégalu dëkku kaw yi. ak Sénégalu euh, réewu taax yi réew réewu mhm. donc ñaari yooyu ñoo am mhm. boo xoolee tey lan moo gën a yokk exode bi mhm. mooy nit ñi di bàyyi seen village di ñëw dakaar ñëw dakaar si promiscuité ñoo xam ne amuñu liggéey mais ñu ngi toog dakaar parce que jàpp nañu ni être pauvre à Dakar ça vaut mieux que être pauvre en zone rurale parce boo toogee Euh, di nga mun a for dara mais yenn problème yi doo ko tukk lan moo ko waral. li ko mm-hmm. waral mooy loolu. Mm-hmm. actuellement. képp koo xam ne ñëw na Dakar. Mm-hmm. da ngay gis mooy euh, pont yu ñu nekk di defar. di gis ay tali yu yanj yi ñu nekk di def. di gis ay terre. di gis ay euh, vraiment lu extraordinaire li nga xam ne ñu ngi koy def. di tudd ay milliards ak ay milliards. yu ñuy dugal ci ay tali. ci ci biir Cap-Vert c'est vrai. mooy capital bi. mooy euh, aussi euh, li nga xam ne moom la ñuy mooy suñu fierté. capital bi waaye tamit capital bi pour mu mun a dund. il faudrait que euh, zone rurale bi. mu mun a aussi noyyi. sinon après day am asphyxie. te loolu baaxul. actuellement amul benn tali bu baax ci suñu côté yooyu. xaw ma am ndax am na foo xam ne mais ñun daal fu mu nekk nii euh, d'abord même président de la république. Daawat ba mu demee di inaugurer euh, di lancer deuxième phase PUDC. Mhm. Euh, dafa promettroon population bi ne leen ni dama leen di defal. Ah, justement ci loolu sax laa bëggoon a wax gis nañu programme état yi muy PUDC muy PIMA daanaka da koy yaatal ci à l'intérieur du pays lu tax programme yooyu yegsiwul ci bo yegsiwul ca euh, Sindia. oui programme yooyu egsi nañu. Mhm. waaye nu ñuy egsee dañuy ñëw ak ay financement yoo xam ne. yu faible par rapport ak li nga xam ne loolu nga mun a def pour suqali dëkk boobu. Mhm. tey boo estimoon Puma ñëw na foofu. Mhm. Puma def na fa benn euh, poste de santé ak benn ambulance médicalisée. Mhm. loolu la fa Puma def. Euh, PUDC def na fa euh, benn forage pour le moment. ñu ngi nekk di liggéey si deuxième forage. donc voilà lu ñu fa defoon côté Tali amul benn programme boo xam ne def na fa Tali lu dul. Euh, PPDC bi nga xam ne def na fa te ñoom ay piste la ñuy def la ñuy wax piste mooy euh, tali rang-rang yu xonk yooyu mhm. di bëri poussière te bu tawee rek xeer yi nga xam ne kii dañuy warangaan mhm. euh, ndox mi yóbbu ko ci faro yi mu dem créer lu ñu naan ensemble ba mhm. ensemblement des rizières donc si dëkk yoo xam ne agriculture mooy seen activité donc lu ko waral mooy non seulement dañ lay defal piste mais piste bi bu ñu koy def du ñu def ay ouvrage d'art mhm. maanaam du ñu def ay caniveau yi nga xam ne ndox mi foofu lay jaar pour que ndox mi bañ a mën a dagg tali bi mhm. jël kii yóbbu ko mhm. donc daanaka dañuy rafistole donc boo xoolee commune bi ba mu fa nekkee ba léegi euh, tali yi ñu fa def ay piste euh, motul quatre-vingts kilomètres piste donc te amul benn kilomètre de route goudronnée boo xam ne am na foofu tali bi ñuy wax nii route coloniale la nga xam ne bu am solo la pour que nga mun a euh, di dugal wala di génne ay produit ci biir dëkk bi ci biir commune bi mais aussi si yeneen communes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir ñu tuddee ko Fogny mhm. zone boobu zone territoire boobu ñu tuddee Fogny boo jëlee département de Bignona laa wax département de na boo ko xaajee ñetti pàcc zone boobu rek ñaari pàcc du département bi lay jël mais zone boobu amul benn kilomètre de route goudronnée. Mhm. président daal Euh, boucle mooy tali bu ñu goudronné mhm. mais ba léegi amagul benn boo waxee ñu naan lañ bon mais entre waxu njiitu réew président bi ñëw wax population bi ni euh, yenn sama xaritu fooñ yi mhm. dinaa leen defal boucle di fooñ mhm. mu nekk loo xam ne digle moom moo ko wax dafa ne yenn sama xaritu fooñ yi naa leen defal boucle mooy si campagne présidentielle bu ñu jóge naa leen defal boucle donc waxul nii dinañu def ay études dinañu def lii pour que après ñu door a def boucle bi donc ñi nga xam ne ñoom la dénk ay ndombo tànk ci côté defar ay tali. Mhm. dañu war a jàpp ni waxu président warul neen comme waxul président warul neen dañu war a def de telle sorte que boucle boobu mu am ci biir mandat wu président fu ñu toll nii. Mhm. ñu ngi toll si deux mille vingt et un léegi deux jeex parce mois de septembre lañu toll nii. ñeenti weer ñoo ñu dese pour que ñu dugg deux mille vingt deux. Mhm. deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. Mhm. mandat président jeex na. Mhm. donc tali la boo xam ne mënoo ko def ci benn at. léegi yow fu mu nekk ni amoo benn jéego boo def ci côté loolu. alors kon deux mille dix neuf euh, digle yi fa defoon ba léegi daanaka jëmmalagu ci dara. non ba léegi euh, digle yooyu euh, population fooñi. ñu ngi xaar boucle bi nga xam ne. président dafa taxaw. ci rajo yëpp ne dinaa leen defal boucle di Fogni mhm. naa leen ko naa naa la boucle du Fogni sera faite mhm. moom moo ko wax ñu ngi toog di ko xaar léegi ñu koy laaj léegi lan moo yéexal yëf yi wala li nga faree ci kujje gi moo tax wala li yéexal parce que euh, bu doon Sindian kese la dinañu wax lu ma far si kujje bi la. mais dañoo seetlu nii par exemple maire yi nekk faree ci opposition yu bëri bu ñu amee ay programme pour ñu jëmmal ko dafay day jafe lool ndax daanaka seen doole moo ko dul mate bu fekkee ni état bu Sénégal la wu leen day am ay jafe-jafe yu bëri. waaw loolu la moo tax ñun dañu ne si séddale bi. Mhm. lépp li nga xam ne Sénégal moo ko moom. Mhm. buñ koy séddale. vraiment dañu war a def comme ndey seex. Mhm. fexe ba telle sorte que euh, ñëpp mën si jot même bu nekkee day néew après lu ku nekk di am day néew. Mhm. mais ñu fexe ba ñëpp mën si jot. Mhm. mais tey dañu gis ni dafa am par parloo ci séddale bi donc depuis si tali yi programme def ay tali ci biir gox yi day am ay difficulté ñii dañuy am ñii duñu am. te boo xoolee euh, day mel ni que dañuy. Euh, tànn di jéem a jàppale dooleel. Mhm. parce que naam bu ñu defee tey benn infrastructure si commune Sindia <laughs> maire daf koy capitaliser. Mhm. day naan si sama biir mandat. Euh, tali bi ñëw na. Mhm. donc dañ koy capitaliser mais dañu war a dépasser loolu. xam mm -hmm. ne même maire bu dam bu ndamoo li nga xam ne loolu la nguur def ci biir euh, mais euh, dañuy am seen sincérité. Mm seen courage seen vérité pour wax ni lii ba may nekk maire lañ ko def. mais diw moo ko def. Mhm. wax naa fi léegi ni Puma ni def na fa benn poste de santé. Mhm. andi na fa benn ambulance médicalisée. Mhm. donc si sama nguur la mais Puma moo ko andi. wax naa ni euh, PUDC andi na fa benn euh, benn forage boo xam ne pare na te mu ngi fay teg benn deuxième forage mu nekk euh, ñaari forage yu PUDC nekk di dugal ci côté boobu. PPDC ñëw na fa commencé def piste. PPDC. fu mu nekk nii arrêté na. Mhm. maanaam programme bu am solo bi nga xam ne boobu la président la république njëkk lancé ci Casamance. Mhm. ñu tuddee ko PPDC. Mhm. mooy projet pôle de développement de la Casamance. projet programme boobu dafa mel ni morne maanaam dafa juddu euh, daal di faatu. daal di faatu donc loolu loolu moo xew. actuellement kenn déggatul PPDC. te mooy programme bu am solo bi président njëkk lancé pour Casamance. lan la réaliser. bon nekkuma fi du sama prérogative. Mhm. pour évaluer lu mu def. mais si sama côté man. Mhm. sama commune lu mu fa réaliser. Euh, bu mu leen doon noté sur dix un laa leen di jox en sur dix. maanaam mooy defuñu fa dara. defuñu fa loo xam ne mun na andi euh, amélioration ci dundinu. askan bi nga xam ne moom moo fa nekk. Mhm. que yow zone rurale ñun lu ñu laaj parce que booy def dara ci benn gox. da ñëw. Euh, waxtaan ak askan wi ñu euh, surtout ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen représenté ñu wax la ñoom seen orientation lan la ñun ba ñu ñëwee en 2014 2015 dañu def li ñu naan euh, PDC. Mhm. mooy euh, plan de developpement communal. Mhm. mooy dañ def planification. Mhm. def diagnostic ne suñu commune de Sindian voilà nii la tëddee nii la bindoo lii mooy ay lu mu am lii mooy li nga xam ne amul am amu ko mooy force ak faiblesse lii mooy opportunité mooy loo xam ne boo leen ko defee. dina mën a naat lii mooy ay faiblesse mooy ay menaces yoo xam ne euh, buñ ko jéemee maîtriser commune bi dina dem. Mhm. bañ ko defee ñu génnee ay yoo xam ne ay bëgg-bëgg la ak ay priorité yoo xam ne bëgg nañ ñu jàppale ñu si. Mhm. lu jëm ci ay tali. Mhm. Euh, lu jëm ci euh, électricité parce que actuellement électrification 10 pour cent la. loolu la ñu maanaam boo boo jëlee lu mot téeméeri kër. fukki euh, yi daal ñoo am fukki ñoo am courant yeneen yi amuñu courant. Mhm. naam am na euh, extension bu ñu def bu permettre ñu dolli benn dëkk. Euh, ci nga xam ne yooyu ñoo amoon courant. Mhm. mais si fukk ak juróom-ñeenti dëkk. Mhm. mu am ñetti dëkk kese yoo xam ne ñoo am courant xam nga loolu. problème la. Uh-huh. ñu dolli si ndox mi ñu dolli si mbay mi. parce bëgg nañu ku ñu jàppale ci ay côté mm-hmm. dinañ si dellu si waxtaan bi daanaka li nga lim dafa mel ni commune bu Sindia jafe-jafe yi muy jànkoonteel euh, bëri na lool àddu ci wàllu wér-gi-yaram euh, lan mooy tolluwaay bi foofu ba nga euh, en tant que maire yan ba nga toogee ci localité bi 2014 ba léegi yan ñaata district sanitaire moo fa am ci boobile localité waaw côté wér-gu-yaram bi nga xam ne lu am solo la mm-hmm. vraiment depuis ba ñuy toogee ba léegi commune bi. Mhm. ak askan bi nga xam ne moom mooy yeewoo foofu. Mhm. ak askanu Foni lu mu laaj mooy am benn centre de santé foofu. Mhm. fu mu nekk nii euh, juróomi poste de santé la ñu am. Euh, seen plateau technique dafa des. donc euh, malade yi nga xam ne ñoom ñoo nécessité prise en charge boo xam ne c'est bu am solo la. il faut ñu évacuer leen ci Bignona. Bignona Euh, li fa nekk aussi il faut ñu évacuer ko sur Ziguinchor. Mhm. boo xoolee tey euh, si jàngat bu ñu def ñun. Mhm. parce que wax naa def nañ suñu plan de développement communal. Mhm. jàngat bu ñu def mooy boo analyser euh, taux d'évacuation yi nga xam ne yooyu la na di am. maanaam malade yi di jóge ci biir gox yi di dem si département na boo xoolee Sindian moo ëpp lu muy yónnee ay malade foofu. Mm-hmm. te ay malades yu bëri dañuy egg arrivé décédé. Mm-hmm. lan moo tax tali parce que tali baaxul. Mm-hmm. moom laa lay wax noonu nga jël malaat di ko kexee kexee si tali boo xam ne bu bon. mu laaj malade boo xam ne dafa war a egg rapidement. pour ñu mën ko sauver loolu day am ay jafe-jafe. Euh, ba taw bi amee. am na ay accident yu fa am. mais toujours sapeur pompier ak gendarmerie bu ñuy jógee foofu di ñëw balaa ñuy egg si Bignona euh, Sindian dañuy perte temps bu bëri évacuation bi am na problème euh, léegi ñun lu ñu mën a def côté boobu mooy lan mooy dañ leen naan ni euh, santé bokk na si compétence transférée mais si compétence transférée boobu carte sanitaire bi mooy fépp foo xam ne dañ fa war a teg benn poste de santé walla fépp foo xam ne dañ fa war a teg benn mhm. euh, centre de santé mhm. yow amoo sañ-sañu proposer ne fii laa bëgg ñu teg ko mhm. bu ñu fay bu ñuy teg benn poste de santé duñ la demander sax sa avis on demande pas au maire bugg nañ teg fii euh, centre de santé loo si xalaat duñ la demander sa avis dañuy jékki-jékki rek sànni la maanaam carte de santé bi euh, c'est centralisé te ñu ko centralisé ñu la associé ci même bu nekkee si sa gox lañ koy andi duñ la associé buñ koy buñ koy mhm. mettre en place dañuy jékki-jékki ñu sànni la benn mhm. benn benn benn texte ne la ni kii euh, poste santé bu ñu ñu teg fii la mhm. bon ñoom ñoo xam techniquement ñoom ñoo yoree tout mais décentralisé bu nekkee compétence transférée la dañu war a transférer compétence boobu mais carte santé bi boo jëlee euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy infirmier chef de poste yi ñi di liggéey foofu euh, ku leen di recruter. Mhm. mais ministère moo leen di recruter di leen di yónnee foofu di leen di affecté comme nu leen neexee maanaam tey da am benn poste de santé fii mu nekk liggéey jékki-jékki ki fa nekkoon di liggéey di def ay jéego ñu jël ko yóbbu ko feneen andi la keneen mu ñëw recommencer. Mhm. donc éternel recommencement la. Mhm. waxuma ni. Euh, agent administration bu nekkee benn truc mu demande ne dafa bëgg a ñu waruñu koy bouger loo. Mhm. mais jékki-jékki bon gis benn agent nga jël ko yóbbu ko feneen te andi woo keneen ku fa nekk loolu dafa nekk ay jafe-jafe yoo xam ne da ngeen di xool xool leen li nekk di euh, di am si si si gox yi même biir si Sindia am na ay manifestation yu amoon temps yi passé. Mhm. parce que dañu jël benn agent de santé euh, yóbbu ko feneen alors que andiwuñu keneen. foofu ah, alors que yéen population bi yéen ko gën a soxla. population ñoo ñoo ñoo gën xam nga dafa mel ni côté urgence Euh, urgence bu hôpital euh, maladie fa nekk ku nekk yow sa kaa nga xam. Mhm. ñëpp ay urgence ñooy tase foofu. léegi bu ñu ñëwee naan la kii moo gën a urgent kii yow boo àndee sa urgent ñu ñëw naan non kii moo gën a urgent kii yow nooy def yow doo ko mën a nangu. Mhm. donc euh, dañoo war a fexe te telle mu bañ a am arbitrage li ñu mhm. naan arbitrage. si gestion cas urgent cas war waroon am arbitrage. maanaam dañu war a fexe de telle sorte que benn situation benn service boo xam ne mooy gérer urgence. Mhm. dafa war a nekk de telle sorte que waruñu am euh, rencontre ñaari urgent ba ñu naan kii moo gën a urgent kële. dañu war a fexe en lu koy indi souvent mooy da ngay foofu hôpital yi ne fare ci région yi wala dañuy am problème mu ressources bu doy maanaam médecins yi nga xam ne daal dañuy nekk ay médecins eh, dañuy nekk en spécialisation mën a indi saafara ci jafe askan wi loolee moo koy indi euh, d' plus que ñu bëri ji médecins yi ñu nekk fii si dakaaru bu ñu leen affecte ci région yi du ñu nangoo dem te lool da leen indi gàllankoor ju ñu nga ko say kàddu. waaw loolu la parce que mais. Euh, li war a jiitu loolu. li war a jiitu loolu mooy carte sanitaire bi dafa war a équilibré. Mhm. Euh, bu leen neexee ñu naan ni dama leen ŋàññi ne leen carte sanitaire équilibré wul mais sama commune carte sanitaire bi équilibré wul. Mhm. parce que euh, Sindian foofu ba si frontière ba amul benn centre de santé bu fa nekk. te euh, malade yi fa nekk dañu am solo ensuite zone la boo xam ne zone de conflit la zone frontalière la donc war nañu relever plateau technique bi li war a jiitu. mooy dañu war a relever plateau technique bi bu ñu relever plateau technique bi mën nañ fa affecter ay personnel de santé yoo xam ne ñoom tamit seen niveau de qualification war na méngoo na ak euh, euh, li fa nekk mais bu nekkee ay poste de santé rek nga fa kii ay ICP nga fay teg. Mhm. doo fa mën a teg médecin. Mhm. côté boobu amul médecin. Mhm. amul médecin d'enseignant ay infirmier ñoo fay nekk. donc depuis boo jëlee Bignona ba si frontière ba amul fépp fenn foo xam ne am na benn médecin. taux de couverture de un médecin pour mille abitant mhm. ma ne la commune de Sindian seize mille habitants la ñu am. seize mille habitants commune de Sindian ci benn ci benn infirmier. seize mille habitants yooyu cinq infirmiers. cinq cinq infirmiers amul benn médecin. donc xool xoolal léegi leen amee cas yi nga xam ne c'est urgent noo leen def par exemple. évacuation sur Bignona moo tax mën naa leen ni suñu évacuation sur Bignona moo ëpp. Mhm. bu eggee bi Bignona comme na tamit foofu tamit euh, centre de santé la du hôpital. Mhm. donc suñu plaidoyer ñun commune de Sindian dafa dépassé sax ñun suñu kaw commune. Mhm. dañu ne ñun suñu commune war na nekk centre de santé. Mhm. bu ñu demee Bignona fi nga xam ne foofu la ñuy évacuer suñu li nga xam ne gars yi mënuñu leen jël foofu tam mu nekk hôpital. parce que bi na dans la région de Ziguinchor na mooy euh, département bi gën a rëy mais amul amul hôpital. Mhm. donc loolu dafa nekk loo xam ne woon donc. bu ñu relever plateau technique mooy centre de santé bi nga wax noonu ci côté wérgu yaram bi ñu ngi ñu ngi xeex depuis 2014 pour que mu nekk centre de santé mooy poste de santé bu Sindian bi buñ ko amee euh, ñu passé ko de poste de santé à centre de santé léegi ñu mun a tegal ay euh, personnel comme médecin parce que centre de santé moo mun a am médecin mm-hmm. donc médecin boo xam ne dina mun a jël en charge yenn préoccupation da ngay am ay accidenté yoo xam ne euh, yu ñu mun a jël mënoo def opération. Mhm. Euh, yenn munoo def opération chirurgicale ci poste de santé. Mhm. bu laajee intervention boo xam ne day laaj opération chirurgicale il faut mu génn dem ba Ziguinchor parce que Bignona sax bi ño na daaw la door a am bloc opératoire. département bu toll ni Bignona. daaw la door a am bloc opératoire. Mhm. Euh, ñu baral yëf yi daanaka waxtu wi li ci des euh, bëriwul àddu ci wàllu éducation. Euh, ci commune bu Sindia euh, ca na tolluwaay bi ci wàllu njàng meek njàngale bi ñaata école moo fa waaw ci côté njàng bi ak euh, njàngale bi. Mhm. côté sous secteurs yi mooy enseignement secondaire benn lycée la ñu am foofu lycée boobu mu ngi nekk en abri provisoire maanaam lycée bi kenn tabaxu ko tabaxu lycée. ay salle de yoo xam ne élémentaire la ñu waroon nekk hmm. yooyu ñoo nekk ci lycée boobu hmm. donc euh, kooku boo ko xoolee nekk na jafe-jafe bi nga xam ne euh, mooy jafe-jafe bu gën a tar ci ci commune bi parce hmm. que tabaxuñu ko même euh, ñu ngi jéem a tug te malheureusement communes yi mënuñu tabax ci côté yooyu ak coopération décentralisée ñoo ñu may ay salle de ñu teg leen foofu ci lycée bi mais lycée bi mu ngi nekk en abri provisoire. Mhm. boo jëlee côté euh, collège bi mooy enseignement moyen. Mhm. foofu am nañu euh, ñetti collège ci commune de Sindia ñetti collège yooyu euh, naam tabax nañ leen. Mhm. mais benn collège bi euh, ñu ngi door a commencé activité wu tabax parce que dafa taxawoon lu yàgg yàgg li taxoon mu taxaw. mooy euh, lu may wax sànq. Mhm. maanaam dañuy centraliser lépp Dakar di passer ay marché pour di tabax ay infrastructures à l'intérieur du pays mu am ay entreprises yoo xam ne euh, dañuy basé wu euh, seen raison sociale dakaar lay nekk ñu gagné marché yooyu bu ñu gagné marché yooyu bu el dese desul lu dul léegi réaliser. ñu commencé di andi ay prétexte mhm. maanaam euh, di ñëw di naan ni euh, kaaraange gi amul fële et cetera di indi yeneen explication mhm. yi tax ñuy délocaliser euh, marché yi nga xam ne yooyu lañuy ñuy gañoon pour réaliser ci yenn gox yi ñu daal di ko déla délocaliser yóbbu ko ci yeneen gox mhm. loolu nekk na li nga xam ne andi na ay jafe-jafe yu bëree bëri si mhm. suñu gox yooyu mhm. te Sindia nekkul exception mhm. wax naa la ko euh, li koy firnde mooy seemu Médhiec depuis 2006 la ñu lancé marché wu lu ñu naan marché USAID pour tabax seem boobu mais depuis 2006 ba léegi école boobu mënul fexe ba pare ba finalement dañu mujjee réallouer Euh, marché boobu jox ko keneen euh, mu door commencé di liggéey ci CM boobu. Mm-hmm. donc loolu dafa nekk situation boo xam ne bu catastrophique côté CM toujours mooy enseignement moyen. Mm-hmm. commune bi ak tolluwaayam demandé na au moins am euh, lu ñu naan benn quatrième collège. Mm-hmm. si dëkk bu ñu naan Diagong pour mun a. Euh, gën a parce que ndëkk dëkk yoo xam ne euh, parents yi mooy population yi seen doole demeewul noonu boo leen buggee jàppale da ngay fexe ba lépp li nga xam ne loolu la ñuy soxla ñi am ko nu mu gënee jegee ci ñoom mu bañ leen sori maanaam boo euh, wàññee distance bi nga xam ne moom la élève bi di parcourir pour dem jàngi mhm. soo ko wàññee rek maanaam jàppale nga dëkk yooyu mais tant que wàññeewoo ko mu naan mooy collège de de proximité yu ñuy tudd soo ko wàññewul da ngay sonal population bi. Mm-hmm. parce que population boobu moom moo mm-hmm. war a euh, jël en charge activités yi nga xam ne mooy euh, activité wu éducation xale yi. Mm-hmm. donc loolu euh, dafa nekk loo xam ne tant que nguur gi jógu si. taxaw si. jàppale si askan bi dañuy am ay jafe-jafe. côté enseignement élémentaire. xaw na tane parce que euh, dëkk yu mag yëpp euh, ci commune bi am nañu euh, école élémentaire. Mhm. donc foofu am na tout peut-être fi nga xam ne ay jéego la yu nekk di def mooy dégg ngeen jamono yi passé ay BCE décentralisé mooy pour éviter centralisation investissement yooyu. Mhm. mu am ay loo xam ne nguur gi daf ko doon jagle mhm. commune communes yi. pour que ñuy tabax ay salle de classe ci élémentaire yi. Mhm. donc ak loolu euh, ñun suñu côté suñu commune euh, jàppale nañu ba réaliser nañu ay salle de classe yu bëri ba fu mu nekk nii abri provisoire am na. Mhm. mais bëriwul comme ñun ba ñuy egsi. Mhm. donc am nañ si ay jéego yu ñu fa def euh, mais jéego yooyu comme nu ma waxee la nu ma ko waxee sànq rek. ki la tàllal loxo jox la ba nga def dara delloo ko njuga donc nguur gi jàppale nañu ci côté tabaxum ay salle de classe de l'élémentaire mhm. si lu ñu naan PROSAP c'est-à-dire que euh, réduction abri provisoire yi donc ba léegi fu mu toll nii am nañu ay abri provisoire mais lu fa nekk euh, bëriwul trop mhm. côté résultat yi si élément euh, si éducation comme mhm. foofu la ñu toll toujours résultat yi tane na mais tollul fu ñu ko bëggee par exemple baccalauréat bi résultat yi gis ngeen nu mu mel ci réew mi mhm. noonu la mel tamit foofu si Sindian Sindian eh. nekkul exception par mhm. rapport ak résultat yi maanaam eh. amuñu ay résultat yu am eh. solo gis nañ ci njëlbeenu waxtaan bi ba léegi jafe-jafe yi nga lim Eh, yu askan ba yeewoo sa Sindia daanaka bëri na lool foo làmb rek féppay métti 2014 nga toog ci bopp localité bi ba 2021 2022 ngeen di def eh, ñi def élection locale ak départementale yi est-ce que mën nga ñuy wax par exemple lan mooy bilan bi ba nga fa toogee ba léegi lan ak lan nga fi def ci tënk. voilà ci tënk euh, euh, lu ñu fa réaliser. par mhm. rapport ak li nga xam ne mooy suñu compétence yu ñu transféré. Mhm. mooy côté jeunesse bi. Mhm. Euh, fu mu nekk nii réaliser nañu ñaari stade fonctionnel ñaari hmm. stade hmm. njëkk nañu def benn stade Sindian mu nekk euh, chef lieu bu commune bi hmm. réaliser beneen stade ñu tuddee ko city stade si benn dëkk bi nekk a côté mu tuddee ko Kañaru euh, stade boobu dafa nekk stade boo xam ne multifonctionnel la maanaam dina am football handball volleyball basketball athlétisme maanaam sport yëpp dañuy tase si plateau boobu donc loolu nekk na réalisation ñu ngi nekk di di réaliser benn troisième stade euh, ci commune bi si beneen ñetteelu dëkk bi nga xam ne moo ëpp population ñu tuddee ko Médek mhm. donc loolu côté jeunesse bi mhm. euh, ak sport bi loolu lañ fa nekk di di def côté euh, éducation wax naa la sànq mhm. salle de classe yi nga xam ne def nañ ko foofu Euh, naam ak euh, jàppalewu euh, nguur gi yenn programme yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw. Mhm. côté wérgu yaram bi côté éducation aussi en dehors de fourniture scolaire yi nga xam ne dañ koy réaliser bu baax a baax côté boobu. côté aussi beneen fànn bi nga xam ne mooy. Euh, santé bi. Mhm. Euh, jot nañu am euh, benn poste de santé ak benn ambulance médicalisée boo xam ne mu ngi nekk ci dëkk bu ñu naan Tandine. Mhm. am nañu aussi genre daanaka lu ñuy naan ci fonds de dotation yi. benn accompagnement bu ñuy def ci côté garab yi. Mhm. donc at bu nekk dinañ leen tegal garab te depuis mbas bi ba mu ñëwee daaw ba léegi. gën nañuy baral suñu Euh, activité côté boobu. Mhm. fexe nañu ba sensibiliser population bi ci li nga xam ne loolu mooy geste barrière jàppale leen ci ay équipement mhm. équiper poste de santé yi. waaye mhm. tamit équiper euh, ñu naan euh, jàkk yi. ci ay. matériel de lavage des mains. ay gel ak ay saabu. par exemple 2014 ba 2021 li nga toog ci bopp localité bi ni mu bëree ak li nga lim ci wàllu réalisation néewul. Euh, moom laa lay wax noonu cest à que dafa nekk ay communes yoo xam ne seen fonds propres yi euh, bëriwul. Mhm. Euh, mais boo xoolee réalisation benn stade. Mhm. vingt millions la lay dikkee. Mhm. benn benn stade bu ñu réaliser en investissement yow sa investissement bu ñu lay jox maanaam noonu noonu la toll. donc moo tax sa réalisation yi ngay def day toll ak budget bi nga xam ne moom lañ moom moom nga yore. mais lu may lim noonu moom laa wax noonu cest à que c'est côté par secteur. boo demee ci côté transport bi. Mhm. Euh, def nañu euh, pour améliorer mobilité euh, transport bi fexe nañu ba dugal fa lu ñu naan ay taf-taf. muy ay euh, tricycle yi mhm. dugal nañ fa dix tricycle mhm. jox ko xale yi ñu mën a daan seen doole mais monsieur le maire fukki tricycle néew na de waaw mais si boo fexee ba benn dëkk bu nekk ah. euh, nga teg fa benn jumtukaay mhm. boo xam ne dina mën a euh, yombal dem bi ak dikk bi ci loo xam ne amul dara neen neen neen moo fa nekkoon nekk na loo xam ne lu tane fexe nañu tamit ba ñu gisee ni dundin bi par rapport ak jën bi parce que dama la ne zone la boo xam ne àll la ñu am mais amuñu dex amuñu yeneen Euh, fexe nañu ba am fa benn frigo boo xam ne moom mooy dem si gox yi nga xam ne am na euh, ni ñu koy wooyee euh, am na dex mhm. maanaam ay Kafountine wala ay ñoom seen mhm. di fa jëlee jën di ko indi ci biir commune bi mhm. di ko jox jigéen ñi ñuy liggéey fexe nañu tamit si côté organisation jigéen yi taxawul fa lu ñu naan avec mooy association villageoise d'épargne de crédit que jigéen yooyu nga lim am nañ marché bi nga xam ne méngoo na ak jamono ñu mën fa def seeni activité am nañu marché bu méngoo ak commune bi nu mu toll maanaam. Euh, maanaam am nañu benn marché boo xam ne foofu la ñuy euh, développer seen activité yi. mais marché bi est-ce que par exemple moderne na. su ñun suñu gis-gis dafa dépasser lu ñu naan marché physique. Mhm. maanaam marché boo xam ne dañ koy taxawal nii mu occuper espace bu bëri. après muy tilim ci biir ñun suñu gis-gis. Mm-hmm. dafa dem ci lu ñu naan marché virtuel. maanaam def ay mbaar kii. non non non marché virtuel mooy maanaam da ngay euh, tijji benn boutique ci internet bi. Mhm. boutique boobu foofu ngay euh, def say produit mhm. yi ngay jaay. Mhm. Euh, dina am ñi nga xam ne ñoom foog ñu ñëw toog ci benn place ñooñu ñu dem ci marché ba. mais ñi nga xam ne actuellement ak évolution technologie. muy internet beeg ñoom seen. da leen tijjil benn ay plateforme bugguma fii cité tout pour mel ni ay publicité parce que du ma fi def publicité. Uh-huh. mais da ngay tijji plateforme boo xam ne tey euh, ku soxla benn produit muy maanaam jën nga soxla wala ceeb nga soxla wala oignon nga soxla da ngay si benn lien mu génn la benn boutique virtuelle. Mm-hmm. maanaam da ngay toog sa salon yow sa salon euh, di def say marché. di dugg say boutique dugg marché ba. Ah, euh, mais ñuy jëngu ci wàllu jaayum jën bekk légume bi est-ce que soxla nañ loolu par exemple maanaam ñi nga xam maire yi di yeewu ay fajar dem wuti jën ñëw ci marché bi askan wi war fa nduggee est-ce que am jot boobu li nga lim fii. dañu war a dépasser tey fu jigéen ñi di yeewoo ay fajar. ah loolu moom mënul euh, ñàkk. si dina ñàkk. naa tous les pays du monde boo gisee dañu am marché yoo nga xam te ne gis nga fu ñu jëm fu ñu hmm. jëm foofu la ñu jëm. Hmm. Euh, xaw ma kañ lay doon. mais ñun ñu ngi siy liggéey dañ siy liggéey de telle sorte que même jigéen bi nga xam ne moom moo war a jóg dem marché comme ni nga ko wax jël panier bi dem marché. Mm-hmm. panier ménagère boobu. Mm-hmm. dañ koy dématérialiser. Mm-hmm. dañuy dématérialiser panier de la ménagère. au lieu que muy jël panier bi di dox di dem marché. Euh, par exemple nga génn. taw baa ngi taw nooy def nga wut parasol. boo demee mu ngi tilim fooy teg sa tànk. gis ngeen mbas mi. ak marché yi ñu tëjoon. xam nga marché ba mu ñëwee jox nañu jàngat bu am solo. mooy mu ne njëkk yi tëj tëj marché que euh, voie de euh, ni ñu koy wooyee propag lieu de propagation lay doon. ñu ne kenn du dem marché. ñu ne kenn du génn. lan mooy solution bi. donc ñun suñu solution. mooy panier de la ménager dañ koy dématérialiser la rendre ko virtuel. yow jigéen gi da ngay toog fii nga dugg si marché bi. mais soo duggee si marché bi xam nga ñan ngay fekk foofu. Mhm. jigéen yi waroon jóg fajar. Mhm. pour nongi nongi dem jëndi jën. Mhm. da nga leen di fekk ñu toog yore seen tablette. Mhm. dañu yore seen tablette. Mhm. da ngay ne tak nga commandé euh, sa jën mu génne mu naa la jën yi laa yore. su la nee jën yi laa yore nga ne ko bugg naa sompat. tant de kilos bugg naa euh, mûri tant de et cetera. nga def sa commande mu ne la ok ce kii baa ngi nii. nga dugal ci sa panier. soo defee sa ndugg boobu yëpp ba mu pare. nga conditionné sa ndugg. ba mu pare sa ndugg a ngi nii gis ak organisation bu mu la wax sànq. Mm-hmm. nga am euh, sëy ñoo xam ne parce que kii nga xam ne moom dafa toog ci salon di jaay jënam. Mm-hmm. moom tey soo ko nee man un kilo laa soxla de jën kilo boobu mun na ko jël jox ko benn cak-cak bi nekk à cag-cag boobu ñoo livré ko da ngeen di waxtaan rek mhm. bu mhm. boo moo ko andilee temps laa lay jox mhm. nga jël transport bi uh-huh. ah, ah, ah, rapidement ñu àddu si wàllu politique comme waxtu bi njatt nañu élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 gis nañ ñu fare ci kujje gi ñoo ngi nas ay pexe di taxal ay coalition yu mag euh, naka noonu gouvernement bu Sénégal seen coalition bu mag bi ba léegi daanaka tasagul en tant que yow mi faree ci opposition bi lool ban gis-gis nga si am waaw euh, ñu ngi Euh, yàkkamti di ñaan euh, euh, date bi mm-hmm. ñu fekkee ko te tal ko amiin ko te ko yàlla dimbali ñu ñu dugg ci élection bi ci jàmm ak salaam mm-hmm. ñu génn ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo am ay ambition pour diriger collectivité yi mm-hmm. ñoom tamit yàlla may leen wér-gu-yaram ba ñu teewee ko tal ko def campagne bi yàlla def képp ki nga xam ne moom la sa askan. Mhm. yaakaar ni yow yaa war a mun a jiite yaa leen war a mun a jiite euh, nga jiite leen. Mhm. loolu pour mu am il faudrait que euh, mu am organisation ci côté opposition bi naam ñu ngi gis ay organisation yu commencé di kii ak euh, coalition yu commencé di ñëw. Mhm. mais ba léegi des na. lan moo des. li des mooy. am na toujours euh, am na ay parti yi des. Mhm. yoo xam ne ñëwaguñu. waxtaan bi tamit euh, demeewul comme euh, nu mu war a demee bu ñu am synergie yëpp. Mhm. mais li am solo ci man. Mhm. du nombre de coalition yi di am man dama jàpp ni opposition bi war nañu am jàngat bu am solo ci législative yi passé parce que nguur gi tey nekkul majoritaire ci réew mi mais même majoritaire ci assemblée nationale. parce que ak raw gàddu gi boo rawee même benn point yooyu yaay dem te élection bii di ñëw dafa nekk stratégique élection la boo xam ne euh, pour la première fois dañuy élire maire suffrage universel. Mm-hmm. comme dañuy élire maire suffrage universel mooy liste bi nga xam ne moom la ñuy présenter. Mm-hmm. ki nekk tête de moom mooy nekk. Mm-hmm. maire bi su gagné. donc loolu su amee bu amee même bu amee juróomi coalition wu opposition dañu war a fexe ba. gox bu nekk ñu xool ki nga xam ne moom moo fa ëpp chance. Mhm. pour mun a euh, am adhésion wu population bi. ñu jiital ko jiital ko ci liste ñu jiital ko. ñu bañ a jiital ni non euh, kii suñu coalition la war a génne wala kii sama parti la war a génne wala kii sama mouvement la war a génne. Mhm. donc buñ ko defee muy Dakar ñu xool opposition bi yëpp. Mhm. ñu xool tamit ah Dakar. ñii daal diw buñ ko jiitalee euh, Sacré Cœur diw buñ ko jiitalee Grand Dakar diw buñ ko jiitalee Plateau diw bu buñ ko jiitalee et cetera. Mhm. moo ëpp chance politique ñu jiital ko. Mhm. même chose ba si euh, région yi. Mhm. buñ ko defee loolu dina mun a may ndam. surtout que ak caution bi. dafa am piège bu fa nekk boo xam ne gars yi duñ ci bàyyi xel. parce que dañuy naan ni caution bi euh, bépp entité maanaam partie politique wala coalition de parti wala indépendant boo xam ne am na parrainage. Mhm. Euh, pour nga participer c'est quinze millions pour chaque liste de parti. Mhm. wala parti politique. donc quinze millions nga war a joxe pour participer. Mhm. quel que soit nombre de commune yi ngay dugg. donc cela veut que bu nekkee benn commune la quinze millions ngay fay. bu nekkee Sénégal yëpp quatre cent communes ngay présenté quinze millions ngay fay ah di nga ne ah donc parti yi. am nañu avantage foofu. mais piège bi la nekk. Mhm. mooy remboursement caution xam nga caution dañ ko war a rembourser. Mhm. pour nga ñu rembourser la sa caution il faut nga am benn conseiller fépp fi nga xam ne présenté wo nga. Mhm. donc xam nga kon soo présenté si benn commune. y a de fortes nga am nga am benn conseiller. conseiller. Mm -hmm. donc cela veut dire que sa commune sa sa caution dinañ la ko mën a rembourser. mais soo présenté si commune yëpp. soo présenté si commune yëpp si benn commune boo fa amul conseiller sa 15 millions perte monsieur le maire jërëjëf daanaka sax dépassé nañu waxtu bi waroon nañoo waxtaanee coowal certificat de résidence yi ak transfert d'électeurs yi mais waxtu bi moo ñu njatt ñu di bàyyi la ni euh, ma ko commencé ci njëlbeen euh, di leen di sant di leen di gërëm. Mhm. di leen sant si li ngeen ñu may ñu mettre sur la table. Mhm. suñu jafe-jafe yi nga xam ne yooyu la ñu jànkonteel si suñu communes yi. Mhm. mais occasion bi ngeen ñu may aussi pour ñu mun a tënk. suñu ay réalisation yu ñuy def euh, ci suñu commune mhm. waaye tamit euh, joxe suñu xalaat euh, non seulement comme ni nga ko waxee noonu en off au début ci situation bi nga xam ne suñu dëkk voisin bi muy Guinée moom loolu nekk di jànkonteel ñi ñaan yàlla mu jàppale ko mhm. sotti si ndox mu sedd pour li nga xam ne loolu moo jën ci Guinée yàlla defal leen ko fu ñu toll nii gërëm leen tamit si li ngeen ñu jox occasion ñu prononcé aussi langue politique bi situation bi coalition yi ak fu ñu jëm si élection yi. Mhm. donc di jaajëfal ñëpp di jaajëfal tamit si euh, côté technique bi. ki la nekk di jàppale ci liggéey bi waaw Adama bu baax a baax. ak mhm. ñëpp ñi euh, ñu ngi nekk si wet bi di ko jàppale ci liggéey di leen di sant di leen di gërëm. jërëjëf mu nekkoon Yankoba Sagna nekk maire bu Sindia fare ca département Bignona ki fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo di jaajëfal Fatou Baba Fall bi nekkoon ci coordination bi bu leen toxal seen ngeen déglu édition spéciale concernant situation ba am ca Guinée Conakry euh, Fatou Thiam Ngom dina si teew ànd si ak ñi si war a ci téléphone bi jërë ngeen jëf